di nangu monsieur le maire de Pikine Ouest bi yegsi léegi di ko dénk itam xalé yi nga xamné ño and ak mom té nek ci Yewwi Askan Wi ak mom di nuyu nak ki nga xamné mo ñu dalal fi ci la solution muy sunu sœur madame le ministre Aminata Lo nuyoo bi nga xam sama góor yu baax yi nekk ci sama gannaaw ñoo ma ko jox ñu ngi koy nuyoo ci turu le maire Khalifa Sall bi nga xam ni mooy président de la conférence des leaders di ko nuyoo ci turu Ousmane Sonko te kenn ku ci nekk waroon fi teew sëñ Moustapha Sy Al Maktoum ak ñépp ñi nga xam ni sëñ suuf si Jamil ñépp ñi nga xam ni ñoo bokk ci Yewwi Askan Wi mën naa lim ñëpp waaye tey ñi sosoon Yewwi Askan Wi muy ñaar fukki parti ak ñett après trois ji ci la bokk te ña signé ba signé jafe ca la signé woon ndax suñu benn góor bu dëkk Lambaay Fall la conférencier xam nga ko El Hadj Ousmane Seck da daan wax ni ki ëpp xam-xam moy ki nga xam ne bu guddee mu ni fi la kër gi yem bu jant bi ne dang nga kër gi yem foofee kooku ëpp xam-xam kon ñun bi ñu dajaloo nekk ay gor gor yu seen loxo set wecc gor yu mën jakar lo ku ne gor yu mën dékk lu ne ñu seet ba xam ni ñun ñi mën nañoo and suñu jikko and nañ ñu ni dañuy and samp yewi askan wi kéro bañ koy def boba dara leerul won ndax booba élection locale amul woon xamuñu kanay kan xamuñu kan moo mën kan ba ñu dem ba tey ku mu neex ak ku mu naqari loolu la yàlla dogal Yewwi Askan Wi mooy la première force politique du Sénégal moo tax ma wax ni ñaar fukki parti ak ñett ñoo ko sos waaye tey romb nañ ñeent fukki parti ndax ku ñee sa daf ko te yeewi askan wi xam nañ ne ànd gor la yeewi askan wi xam nañ ne ànd bu sell la sëñ Moustapha Sy Al Maktoum daf ñoo déy ca Tiwaawan daf ne am na ànd boo xam ne ku ci bokkul war ngaa xoolaat sa bopp Aminata Lo mii ci la bokk ma di ko félicité tey fii ci xam ne fii lu ma fi wax dëgg la dama fee dëkk ndax Iban Samba Diaw moo yore sama mag jur samay doom ma jël kenn ci ñoom yóbbu Bambey may ko sama mag muy aadama bërki démb la doomam doon génn mooy sama imaam Xadi sama ndey man rek la am ndax yàlla am def na amul doom ñu féetale ma ko ma sekk njaay yor ko fii la dëkk abi caam mii nga xam ne Racky Sarr ko jur Racky Sarr Souleymane jur ko Birama Sarr jur Aminata Sarr mi ma jur Souleymane Sarr ak Birama Sarr bokk ma dikk Sarr benn baay la ñu bokk mu ngi fii ci mbooloo ma ñëw ànd ak seen doom nday jaay tey sant bëggul lu dul fii moom fii rek la bëgg te man moom aminte loo su ma mënul a dox maa leen mag te ku la magee fukki fukki mbubb yàlla dimbale na ma tam am naa teraanga waaye fu ma toll maa ngi dox pour xale yii ànd pour ñu defal seen ginnaaw raay pour ñu nekk ñun ñëpp ci yeewi askan wi parce que yeewi askan wi day mooy yaakaaru réew la ma ko wax rek moo woo Habib Sy mii woo ni leen yaag ay da dénk naa leen yeewi askan wi ndax mooy yaakaaru askan wi waaw loolu kon léegi ñun bu ñu ko dëkk bëkki démb bi Ndiol Fouta di wax ci ziar général yéen a ci toog ñooñu ñoo leen wuyu si tey gor yu baax yi ñoo leen wuyu si tey jaarale ko ci seet jigéen bii mu nekk ak ñoom nekk mu rafet nekk ak ñoom ak yar ak teggin nekk ñoom ak xam-xam ak bëgg fi mu doon moom leer na ko ne fu ñu woowoon ñu wuy ko waaye fii la bëgg Ndeye Cissé yow gor nga àndal moom fii la bëggoon ñu ñëw fi boo ñu yóbbu fu gën a sori it ñu fekk la fa ngeen amit loolu kon madame la présidente ñu ngi lay ndokkee di wax sa jigéen ñi ni leen nañu jàpp te na gën a dëgër di wax kilifa yii ñu fi fekk ni leen nañu jàpp ñu gën a dëgër ñii ay góor la te nag du góor yi ñuy laajte parce que dañoo liggéey ci réew mi ba am résultat te kenn dabagu leen ni leen jox leen ma sama alal te kenn du leen dab li ñu yor ñoo ko moom ñooñu nag ngeen àndal tey ngir Aminata Lo ñooñu la askan wi yaakaar tey ñu ngi ñaan imaam ak le conférencier ak ñépp ñi nga xamni ne ñoo fi nekk ñu ñaanal ñu yalla ba lu bon ci réew mi yalla dindé ko ci sunu loxo ñu commencé ko ci assemblée nationale le 31 juillet ñu am une majorité à l'assemblée nationale soppi assemblée génn ci yu bon yi génn yu bon yi taxawu wa réew mi monsieur le conférencier du ma empiété nag ci sa programme Ousmane jigéen mom suñuy wax rôlam rek bu ñuy wax lislaam rek jigéen a tax moo njëkk a gëm moo njëkk tuur deret sama turandoo moo doon académicien bi moom la ñu Seydina Mouhamed Bataleen jigéen mën naa am pal bu nekk euh, madame la ministre ndax barkis suñu exemple la ngeen baal ma àqoo salaam taxawal ndax madame nee na day taxawal madame waaw auzu billahi min asheytaani bismillahi rahmaani Euh, maa ngi nuyu kilifa yu fi teew les imams les de quartier ak ñi nga xam ne ay kilifa diine lañu ñëw teew tey tey ku gis conférence bi xam ni ah la solution yéenay solution euh, ginnaaw waay ma nuyu la délégation rapidement de Yewwi Askan te sama xarit sama doomu ndey sama patron le grand directeur de cabinet du président Watt, mon ami qui est xam ne j'avais 14 ans koy xam qui ci je suis muy muy sais am xam-xam Mon un délégation monsieur le ministre d'État je lay nuyu di la di nuyu Je di nuyu Djibi professeur Dat di beral loxo doomu sama xarit fu ma nekk mu fekk ma fa lu ma nekk mu nekk ceeb man Malick maa ngi lay nuyu di la sargal yow fii nga dëkk xam nga Malick Guédiawaye mais Malick Pikine la dëkk fii la juddoo ginnaaw raay fii la màggee kon jërëjëf kon li nga xam ne moo am solo mooy jigéen taxawaayam ci société bi c'est important mais lenn rek laa ciy jukki bàyyi conférencier bi mu dem mooy li xew ci jamono ji jigéen

ku dem marché doo xam fooy commencé ak fooy tàmbali kon yaakaar bi ñu am ci yeewi askan bi boo gisee madame la président dama lay gërëm personnellement ndax yow boo ma xataloon yeewi askan bi ma xat fa mais danga maa boot danga may tette dem naa ba nga xam ni bi biñ may dugal ci commission bi bu ma toogee journée gisuma la dama lay namma dama lay namma yéex bee jege laay rëccu jigéen ju baax a nii ñun bi ñu nekkee PDS jegante wu ñu woon yeewi askan wi moo ñu jege jegeloo kon maa ngi gërëm yeewi askan wi mi ma jegeloo sama sœur bii daf may xelal di ma tette di ma woo di am confidence sax confidence yoo xam ne sax daf koy wax ak man du ko wax ak kenn kon yàlla na yàlla yàggal suñu sa taxawaay ci yeewi askan wi bari na njëriñ yàlla yàlla dëgëral la ba li ñu bëgg ci réew ñu ñun ñu takku yàlla defal ñu ko ba ñu mën a yeewi réew mi ndax réew mi dafa tënk tey nag yeewi ngeen waa ginnaaw raay kon maa ngi gërëm Ndeye Ndiaye Tyson vive solution damay libéré nag cette délégation balaa Ahmed Aïdara di ñu attaqué. Ah, kon bokk Ndiaga waaw ñu jox bari nga jox après nga jox Euh, lii nga xam te ni moom lay wax ku ma ko waxul mënuloo koo xam mu jëm ci Malick Gakou Malick maa ngi lay nuyu